ci li borom xam-xam yi wax saxaaba yi nee nag Abu Bakar daal li mu leen yéeme mooy lu baax lu ñu wax rek moom moo cay jiitu lu baax lu yonent bi wax rek nee nañ Abu Bakar musuñoo xam lu baax lu dul ne moo ñu ca jiitu mën nañoo wax ne yitte ju kawe kon kenn jiituwoo ko ci woon kenn ëppalewu ko ci woon bi sallallahu alayhi wa sallam seereel na ko ba tàyyi waaye teewul mu mel ne ku yëgul loola ak ñeneen ak ñeneen ci ñoom ñoo xam ne yonent bi seeral na leen seenu àjjana ba tàyyi waaye daa mel ne yëguñu lool Seydina Ousmane li mu am yitte ju kawe moo ko ko may bu ñuy nettali wax ne Ousmane xeexkat ba Ousmane jullikat ba waaye yitte ju kawe moo ko ko may pas-pasam ci yitte ju kawe ci lislaam moo ko may suñ tuddee Abu Bakrin tudd Omar tudd ko moom moo ko may yonent bi fanaanee na fanaanee taxaw ba bët li ko ñaanal ngërëmal yàlla li ko ko may mooy yitte ju kawe kon yitte ju kawe dana feeñ ci pas-pas kasaalika am na ci sax ñoo xam ne xañ na seeni xamuñu ko woon wala siiwul ci nit ñi te moo ne day ay royukaay lañ ci yitte ju kawe masalan rek am na benn saxaaba bu ñuy wax abdullahi ibnu amrin mooy waajuru jaabir ibnu abdullahi mi ngeen di dégg jaabir ibn abdullahi kuy jàng yàgg ngaa dégg ñu ne hadis sàngam jaabir ibn abdullahi moo ko solo jaabir ibn abdullahi waajuram siiwul waaye kenn xamul ku ko ëpp yitte ci lislaam ci misaal bi rek mooy wax nañ ne ba mu faatoo ca xare Uhud suñ borom dafa wax ak moom direct daal di wax yu yonente bi sallallahu alayhi la mu wax ak jaabir ibn euh, waajuru jaabir ibn abdullahi lu ko suñ borom wax dane ko loo bëgg fekk moom faatu na loo bëgg jamono jii ma defal la mu ne ko xanaa nga delloo ma sama ruu ma delluwaat àdduna jihaataat ñu rayaat ma ci yoonu yàlla suñ borom ne ko sama kàddu dafa jiitu woon ne ñi faatu woon duñ delluwaat àdduna mu ne ko kon li ma bëgg mooy nga xamal nit ñi ak jullit yi payu ku faar ku dee ci yoonu yàlla nga xamal jullit yi payu ku faatu ci yoonu yàlla wax nañ ne aaya bi ci la wàcc wala tax sa banna lasina xutilu fi sabilillahi amwaata bal ahyaa inda rabbihim am na ñu naan sax sababu nusul bi mooy wax gi yàlla waxoon nag waajuru jaabir ibn abdullahi kon loolu yitte ju kawe ci pas-pas saxaaba bi ñu wax it ibn xawfin moom it wax ci sayduna osmaan rek la wax ci moom moom day kenn ëpp ko yitte bi yonent bi madinatul da doon di ci màkka di ko mbokkale kenn ci waa madinatul munawara wax nañ ne bi mu agsee ci abdourahman ibnu awf milliardaire bi ëppoon alal ci madinatul munawara moom la dajeel moom abdourahman ibnu awf moom la war a mbokkoon ñépp ñeeku ne ah abdourahman de dal na ci ndax daje saadu ibnu rabia mi nga xam ki ëpp alal ci madina ak li ko wër waaye bisub keroog lañ xam dëgg-dëgg yi ak naa Seydina Abdourahman ibn Xawf ndax Saad da ko proposé ne ko man maay ki ëpp alal fii ci gox bii nii di mën a Munawwara ca pare naa pour séddoo sama alal ak yow pare naa it pour séddoo samay soxna ak yow ñaari soxna la am xoolal ba la ca gënal ma fase ko bu yi daan jeexee nga takk ñaari tool yi gën a rëy ci Madinatu Munawwara man maay borom pare naa it pour jox la ci ba la ca gënal Abdourahmane di ko diglu ba mu àggat mu ne ko maa ngi lay sant ci sa pëstéef ak sa bëgg-bëgg ak sa yitte ak sa mbaax te it ngi ñaan yàlla mu barkeel sa alal te barkeel sa njaboot waaye de li ma la doon ñaan mooy alal ji ak soxna yi nga ko ta wan ma ni nga def ba am alal moo gënal wax nañ ne saa yu di xëy ca marché ba jàpp ci loxo ñu dem marché ba ñuy jaay ci lañ demee ba Abdourahman ëppule alal Saad ibn Rabia nekk ki ëpp alal ci madinatu munawwar yaakaar naa ku dégg turam rek da nga ne saxaaba bu bari alal boobu kon loolu pësséef la kon pësséef dana feeñ ci dana feeñ ci pas waaye dana feeñ ci jëf dana ci xam-xam bokk na ci majaalaat yi muy feeñ mooy ci xam-xam pësséef dana feeñ ci xam-xam nee nañ saxaaba bi ëpp lum soloo xadis ci yonent bi salallahu taala alayhi sayidina abu hurayra la moom day ku mbir la ndax atum juróom-ñaar la dugg ci lislaam yonent bi fukk ak benn la wàccu liggéey maanaam 4 ans la fekkanteeg yonent bi salallahu alayhi sallam ci am na ñoo xam ne nii début bi lañu ànd ak yonent bi salallahu alayhi wa sallam ba jeexal woote bi maanaam ànd nañu ak yonent bi salallahu alayhi 23 ans 12 ans yu makka ak 11 ans yu madinatul ca moom quatre ans la fekkante yonent bi solo ay hadis yoo xam ne ay alafi alafi ahadis ay juni juni hadis ba mujj nekk ci martaba bu njëkk bi ci wàllu bari lek hadis loolu possible la Abdullah ibn Abbas yàgg nañoo dégg turam wax nañ ne bi fi yonent bi jógee fukki at ak nangam la benn wala ñaar te nee kat moom la ñuy abrul umma foo réew Pastef moo ko ko may kon Pastef dana feeñ ci xam-xam imaam Shafii nee nañ daa mënoon na mokkal ba nga xam ne bu tiimeeb téere ab livre di liir day jël benn loxo bi taf ko ci benn paas bi di concentré wu ci beneen paas bi ndax bu xoolandoo ñaari paas yëpp yëf yi day duggandoo ci moom mu mokkalandoo ko ndax xel mu neex Pastef moo ko ko may imaam Maalik mooy sëriñam ca dem na ba nga xam ne nii ku tudd imaam Maalik tudd ko am na sax ñu koy jiital tudd imaam mari am na ñuy jiital imaam Malik tudd pëstéef moo ko may loolu kon pëstéef dana feeñ ci xam-xam dana feeñ ci jëfe dana feeñ ci jëfe jëfe li nga xam sallallahu alayhi wa mooy ki gën ci li yàlla bind moom xam na ko xam ne mooy ki gën ci li yàlla bind xam na ko bu baax teewul danaa julli sa jàkka ja ba noppi dugg ci biirum néegam di naafi la soxna Aysa nan ko waaye yow yonent yàlla bi doon noppal sa bopp xanaa waxoo ne yàlla jéggal na na sa bàkkaar yu njëkk yi yu mujj yi mu ne ko Aïssa afala akunu abdan shakura xanaa bëgg maa doon jaam bu ñu sant man fi ne loolu lay wër jaam boo xam ne suñu borom damay sant ca périm yi kon pëstéef dana feeñ ci dana feeñ bu baax ci jëf daanaka ñett yooyu mooy yi nga xam ne moom lañ site woon ci wane yi muy feeñ muy ci pas-pas ci xam-xam ci jëfe sunu sëriñ nag Maulana Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul moom dafa dégg yàlla dafa xam yàlla li ñu naan aarifu billaahi dafa mel ne it xam gim xam yàlla dañu cee baaxe lu baree baree bare ba nga xam ne boo yoree sam xel ca tey ca diglum njàngaleem boo moytuwul wala bu la yàlla dimbalee da nga mujj ni doon it yow ko xam yàlla téeréem bii di masaalikul jinaan da cee junj loo xam ne ñun murid yi wala ñun ndaw ñi sax duñ ko seetlu lu baree bari loolu mooy ndeketee suñ borom tëjut bunt yi benn bunt dong la tëj ci bunt bi ne duutu amati lu dul loola rek war nañ koo mën a am ci pëstéef bunt boobu mooy buntu bu yónnante rek la ne du am duutu amat duutu bu yónnante rek martaba boobu ndekkite yoo ba ilaa yawmi diin war nañ ko mën a am jeexagul loolu moo tax moom ci boppam buy yóotu lu rëy lay yóotu su ko jotee yóotuwaat lu ko gën a rëyaat loolu la doon doxale wax na ne yéen nit ñi yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg lu baax bu leen di jël ngëneel di ko jagleel ne ña jiitu woon rek ñoo ko war a mën a am yéen génération bi nekk ci jamono bu leen jàpp ne ñu leen jiitu woon ñoom rek ñoo mën a am xéewal sàngam ak xéewal sàngam wala tuxassis fadla rabbin xat ala bi si taqaddumi faqat fa taj tajhala bul jëm gëneel rek dart yi ne ña jiitu woon ñoo ko mën a am ñun mënuñoo amati nangam ak nangam imaam Shafii lam amoon mënuma ko amati Abu Hurayra lam amoon mënatuma ko amati ahlu badrin lañ amoon mënatuma ko amati déedéet benn buntu la tëj ne kenn duutu nekkati yonent bu dul buntu boobu rek ci xeeti jaamu yàlla yi dana feeñ ci xeeti martabay yàlla yi doomu aadama war na ko mën a am ci pëstéefam ci yitteem ju kawe te loolu dana gën a leer ci kanam tuuti sëñ bi sax joxe misaal daan ne fi mu ci wàllu taw ab taw bu dee sóob munoo wax ne njëlbéen nga bu xësee ba xiin xamoo ba xam ca tàmbali ba la taw bu bari ba di ñëw wala ca jeexal ba lay ñëw wala ca digg ba lay ñëw ca loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko sama xeet yi dañoo mel ne taw kenn xamul yiw wa ca tàmbali ba la wala ca jeexal ba la kon jàppal ne ba léegi yiw yi ak xéewal yi mi ngi fi ba tey sëñ bi moom mooy pëstéef mooy yitte ju kawe sëñ Tuubaa amul ci histoire ku ko ëpp yitte ku ko ëpp ak dogu ku ko ëpp pëstéef amul bi fi sëñ Maam Mor Anta Sali wàcceeb liggéey cent 1300 atum 1300 1882 mag ñëpp dañoo dajaloo ne ko day sëñ Maam Mor day wàcc na liggéey te yow ku ko déggaloon na moom it ku la bàyyi woon xel nga ku la joxoonu cër wax a wax ba àggal nekk ko dañoo bëggoon ginnaaw bañ dëj bi jàllee la nga xam ne moom la yoroon ak taxawaay ba mu doon taxaw nga jël ko yow téye ko waaye sëñ bi nangu na leen lépp ba mu des nag lam yorom ma yor donte ayib ndax pëstéefam ak yitteem bu ca nekkoon loola mën na koo mën na koo bañ a am moo tax wax na xasiidaam goo xam ne génn xasiida goo xam ne wax na ci ñetti yoon ne nit ñi nee nañ man ab dof laa xaaloo sa fiihun ñetti yoon la ko wax ci biir xasiida gi xaaloo sa fiihun li xubbi xaalixi maaliki walam akun lil baraaya astaki darari sama nit nee dama damaa dof ngir bëgg gi ma bëgg yàlla ngir rëy gi ma rëy pëstéef ak li may yóotu li may yóotu daal ak li ma bëgg ni mu kawee tax na ci ba ñoom nee nañ damaa dof waaye nag nañ xam ne walam akun lil baraaya astaki darari samay jàmbat ak samay tële du ko jàmbat ku suñ borom فقلت حسبي ربي واكتفيت به ولست راضي خير العلم والدين ولست ارجو ولا اخشى سوى ملكي لانه جل يغنيني وينجيني بخسي دك جيخ لولو بسيف لا دي سو كيرم لا خم بسيف كي ني دافا ري امنا لومي بك ني امو سيد نييب دا ني كي دال امنا لوم بك ني امو توب سيد نينا دافا دوف با موم سخ جيل نا خليمام نينا نيوم نينا دما دوف فك سما بسيف لا خمغول ak li may yóotu ak li ma bëgg nga xam ne ca at ma ba mu dellusee rek benn at lañ ci teg sallallahu alayhi wa sallam feeñam ca Mbàkke Kajoor ci atum 1301 comme ni ko sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana nettalee ci Irwa 1888 ne ko rabbi asxaabaka bil himmati walaatu rabbihim bi dars yoonu murid yoonu yitte la yitte dëgg-dëgg mooy yoonu murid sallallahu alayhi baatu yitte bi muy tudd waa kër Sëñ Tuubaa yitte la ca boole maanaam yaral saw nit ci bëgg-bëgg yu yu kawe ci pësséef bisu keroog ba mu dajalee daara ji ndax ñu bari dañoo taamoon am njàngaleem ngir leerug làmmiñ ak dégg gi ak laabir gi ci xam-xam ñu bari dañoo taamoon même bi fi sëñ Maamoor nekkee sax bu daa jàngale ñu bari dañuy taamu jële bind bi ci sëriñ bi ngir xër gu muy xër ci lim lay jox leeraayu làmmiñ ji ak barkeelu xam-xam bi ak laabir bi ba mu dajalee mbooloo ma ca maandu ga xamal leen ne leen kat dafa am lu ma bëgg loo xam ne nii pëstéef moo koy maye ak dogg moo koy maye leeral leen wax ja yépp rek la ca aju bisu keroog ñu ko comprendre doon ñoom ñëpp dañoo dem ak yéene ju rafet am na ci ñoo xam ne yéene ju rafet lañ demee xam-xam lañ bëgg nañ dem wuti ko fa am ci ñoo xam ne xam gi ko xam bañ doonee tu tànk ba nii xam nañ ni kii lu mu wax nga nee na ca biir ca lañu nekk ca biir it aw yiw doo nga lay doon ci lañ ne ko ñun loo bëgg lañ bëgg foo jëm fa lañ jëm loolu nag di laaj yu yàgg te metti keroog la Pastef tàmbali nag keroog la commencé di xool yu rëy rëy rëy rëy di yóotu yu rëy rëy rëy lu dutub yónnante rek laaj na ko yàlla lu dutub yónnante rek bëgg na ko lu dutub rek Pastefam ak ci dogoom ak ci góorgóorloom sabablu na ko loolu boo jàngee histoire sëñ bi danañ na ko wan wala da nga ci xam lu baree baree baree bare ci misaal yóbbu nañ ko lu mat fanweeri at ak ñett yoo xam ne ci loxo yi noonu yi la nekk te taxul mu masa mooy yàlla benn yoon wala sax mu jëf loo xam ne nii jëf yi jëf yu ndaw yi rek la te lépp li ko wan li ko ko may mooy pëstéefam te keroog ba mu jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ni mu liggéey wuy ji boroomam mus sa def loo xam ne nii lam waxante woon ak borom bi ca tàmbali ba musu cee juyoo dara pëstéefam moo ko may mboolem awraad yi mu doon jëfandikoo pëstéefam moo ko may wérdu yi mu doon jëfandikoo wérdu gaa yu baax fam moo ko may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko jox ko wérdu boppam woo xam ne nii benn wàll yu musu koo jëfandikoo te moo gën a kawe mboolem yi wàll yu yor pëstéefam moo ko ko may loolu yi ci weeru koor la woon ca sarsaara ci bisub laylatul qadr la ko yonent bi feeñu jëxran jox ko lii ne ko sa borom bala bàyyi ko mu soññee ci nag aw nitam ku di góor ak jigéen mag ak ndaw na koy jëfandikoo ndax ni ma ko yonent bi joxe ni mu amee solo li ci nekk ci yiw wax ci ay dige yu kawee kawee kawe te bari loolu 1321 di war a tolloog 1903 wala 1902 ca Sarsara daa junj lu baree bari nag naan yàlla am na lu ma dikk ci weeru koor loo xam ne bu dikkee di ko bind di ko wax ajran kabiran wa sawaaban wa jasaa wal waada lii fi ramadaana na jasaa yiwu bari we xéewal gi ma diggoon ci weeru koor gi ci weeru koor gi ci Sarsara borom bi jox na ma dig ba def na ko samadu xat awsalta lii fii ramadaan maa rumtu min ka xablahu bi fay fayadaan yow de yow kilifa gi yow yàlla la nga ma waxoon ci weeru koor lépp matale nga ko te mooy jox ma wérdu bo sama wérdu bopp koo xam ne nii moom laay jëfandikoo duutuma laalati wenn wérdu kenn ajootuma ci kenn ku dul yonent bi kenn nekkatul kilifaam ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baana li kulli man lahu maxuulu anna wasilati huwa rasulu ubaayi'ul yawma rasulan mustafa bi xidmatin wa asalullaha wa asalullahu wafa maa ngi jaayante yonent bi sallallahu alayhi bis ni tey ci liggéeyal ko maa ngi xamal ñépp ne wala képp ku amul xel ne kenn nekkatul sama wasila sama diggante sama borom ku dul yonent bi ginnaaw ba mu amee jaar-jaar yooyu yëpp loolu li ko ko may mooy pëstéefam ak yitteem ju kawe yitteem ju kawe tax na ba bi nga xamee ne li taxoon muy génn mooy ràmm aw nitam ba loolu leeree ne aw nitam dana leen ràmm ñi nga xam ne tënku nañ ciy digalam tey bàyyi tereem mu jékki-jékki di yóotu loo xam ne ca buntu yu kawee la ndax daa mel ne suñu borom da koo kasful wan ko mboolem xéewali wala mboolem maraati bi mu gis ne daal bee rek la mënta am mu di yonent waaye am na boo xam ne nii ginnaaw boobu mooy bi gën a kawe mooy payuk ahlu badri mu teg bët bi foofu di xool loolu te day mel ne bis ni tey la woon Badar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor muy xool loolu rek wax ak boroomam ba mu wax ko lu méttee métti yi mu koy jaay xamal ko ne ko yow yaa ko mas laaj ba dogu ci ne da nga koy da nga ko da ko da ko da nga ko am mu ne ca loola ne ca loola ne ca loola ba borom bi jox ko ci ka ci kaadaru sant yàlla nag mu bind fu baree bari ne borom bi la ma waxaale woon ak moom. bam tegal mané li la koy joxé bis ni tay donna ci wa ahlu badr tiyaba ji am ci la ci lay am boo liggé yomal xiyaam adan yal baqi min ahli badr bi mawlid al muhtari ali al qadri sahid allah bi anni wahid min ahli badr wa ma naani jaahil basarani allah bi anni wahid min ahli badrin xaafa minni ljaahilu ixtasani allahu bi kawni abada min ahli badrin saa falaahin saalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu waasiun alim wax ay wax yu bari suñ borom boole na ma ci léeg-léeg mu ne suñ borom jagleel na ma léeg-léeg mu ne suñ borom bégalee na ma ne ci laa bokk léeg-léeg mu ne suñ borom bind na nee na ci laa bokk loolu li ko ko may mooy pës séefam bu kawee ak bu rëy ndax ginnaawam bari na ay aqtaab yu fi jaar bari na ay awliyaa yu fi jaar bari na xeeti nit bu ne jaar na fi waaye kenn musta wax lu mel kenn musta yóotu lu mel noonu kenn munta musta sabablu ngir am lu mel noonu ku dul moom ca lépp ko may mooy pëstéefam moom Serigne Touba kon yoonu murid yoonu yitte la ku xool Serigne Touba da xam ne yitte ju kawe dëgg mooy Serigne Touba loolu moo tax yitteem ju kawe jooju daa bàbbeeku woon ba tuuru lenn ci murid yi nga xam ne moom moo leen yar ñu doon ay boroomi pëstéef yu kawe ca loolu mooy tomb ñetteel bi mooy jël ay exemple ci yoonu murit ñoo xam ne ni daal pëstéef bi xamuñu woon nitu yàlla bu fi jaaroon koo xam ne saw nit xeetu pëstéef bi lañ amoon wala xeetu yitte ji lañ amoon xoolal sëñ Maamoor Jaara moom ak sëriñ bi bokk moom lépp nee nañ sax jàngal na ko naa fi la téeméeri rakka kaamil bi xoolal yu baax yooyu yëpp nga xam ne ci histoire xamoo woon nit ku baax ku meloon noonu waaye lépp xóoru ko daa jël léppam jox ko Serigne Touba loolu mooy yitte ju kawe ndax xam na ne jox boppam Serigne Touba ànd ak moom moo ko man a may lenn ci yim soxla woon moom rek doy na ci pëstéef bu kawe mooy ñoo bokk lépp jàngal na ko nitu yàlla la aarif billaahi la aalim la allaama la mboolem sifa bu baax rek mi ngi ci moom waaye xoolal ni mu déggale woon Serigne Touba xoolal ni mu juboo woon ak Serigne Touba. ca loolu li ko ko may mooy pëstéefam bu kawe maam na Birahim daaman daal moo ne day bu ñuy li maam mu dama koy faral di wax lu bari digganteem ak sëñ Tuubaa dañuy jàpp ne am mag moo xam ne daa nekkoon ak sëñ bi la waaye ndaw la woon ndaw loo xam ne nii mën nañu ci zahir ñun ñii la doon tollalee at wala ñu mage woon ko ci ay at jamonoom ak sëriñ Tuubaa ca metti metti ya muy dem ndar gaab bàyyi gi ñu ko bàyyi woon ak njaboot ci soxna daanaka ko xamal lu bari bu ko def mag bul bu ko def koo bokkal ndey ak baay wala koo bokkal waajur na ko deful taalibe na nga ko liggéeyee na nga jéem a xeeñtu lu la may yëg lu la may ngërëmam loolu it da doon dox pëstéefam moo ko may juróom-ñaari at yi sëñ bi jógee yépp lu ne dégg na ko ci noppam bi taxul mu bàyyi rumeur bu ne wax nañ ko sëñ bi wàcc na liggéey sëñ bi sànq nañ ko lu ne te taxul mu geestu wala mu def loo xam ne nii bu sëñ bi ñëwoon fekk ko ca dana am gerte sëñ bi it gërëm ko woowee na ko tur wu ne xeetu tur wu màgg wu ne woowee na ko xeetu ngërëm bu ne bind na ko ci leetar war na ko ne ko gërëm naa la àgg na ci sax ba ne ko leetar bi yàlla moom ma ko bindloo nee na gërëm naa la na nga xam ne leetar yi bi wala mbind mi mi ngi bàyyi ko suñu borom ca taxul mu wàcc yoonu charia wala aqiq di ko dund borom daaru doy na sëkk ci ci yoonu murid bu sëñ Tuubaa amoon ku mel ne moom rek doy na sëkk sëñ Mbàkke Buso ci misaal sëñ Mbàkke Buso boroom xam-xam yi ñoo ne dafa am xam-xam borom xam-xam yi jamonoom ñoo ne sëñ Mbàkke Buso daa am xam-xam ñun moom tuuti nañ ci wax ne sëñ Mbàkke Buso daa am xam-xam aw nitam boromi yi jamonoom ñoo ne sëñ Mbàkke Buso daa am xam sëñ Mbàkke Buso daa ragal yàlla wax nañ ne sax taxaw gi mu doon taxaw sëñ bi àggoon na ci ba yaram wi sax. daanaka daawul jëfandiku lu bari jëmm ji tuuti lool ba mënootul nit ngir takkoo gu bari gi mu doon takkoog sëñ bi ak tëju gu bari gi mu doon tëjoog sëñ bi doy na ko sëkk rek mooy sëñ Tuubaa moom la dénkaane woon ginnaawam ne na ko taxaw loolu doy na sëkk mu ànd ko ñi nga xam ne ñoom la tuddoon ca taxaw ba kooku doy na exemple ci positif ci yitte ju kawe Cheikh Issa Dieng miñ duppee bis bi sëñ Isaa doy na pëseef ci yoonu murit am na ci sëñ Tuubaa lu kenn amul ci sëñ Tuubaa ña ko fa jiitu woon ak ñu ñëw ginnaawam diir bu gàtt ci bi mu sëriñ bi la làq ngërëmam ci diir bu gàtt la ko sëñ bi boolee ki nit muy defare àgg na ci yàgg gum yàgg a seral xolub sëriñ bi ak yàq yàgg gum làq yàgg a làq ngërëmal sëriñ bi li waroon sëñ bi yëpp danaa ko wax naan ko bul fàtte isaak waa këram li waroon sëñ bi sëñ bi bu toogee lu ne ci wetam la danaa ko bul fàtte isaak waa këram xer yeeg bant yeeg sàkket yeeg néeg beeg puj beeg lépp daa wax naan ko bul fàtte isaak waa këram loolu lu ko may positif moo ko ko may bi mu nekkee fii ci njaareem positif am moo ko mayoon liggéey bii nga xam ne sëriñ bu mag bi bokkoon na ci yi ko gën a ñor muy jumaay njaareem mu teg ci loxoom loolu pëstéefa moo ko may pëstéefam it moom Cheikh Issa ni nga xamee ne noonu la jaxasoo woon ak lenn ci mag yi rawatina sëñ Balla Fally Dieng nga xam ne ñëpp seere nañ ne xaritam la woon ñu ànd liggéey bi ak sëñ Mandoumbe ñoom ñett sëñ Bay Jaxase sax wax na ko ku wax lëf ci Cheikh Issa ak Balla Fally Dieng lu dul ne ñoo gëm seenub sëriñ yow daal dalal di miim sëñ Balla mi nga xam ne moom si Isaa histoire saxal na ne ay xarit lañu woon ca jaxasoo woon nañ bu baax a baax a baax loolu isa gi xam nañ ci dara jabaru sëñ Balla yi xam nañ ci dara sëñ Balla Fally moomu sax bala ñuy ñëw ci digganteem ak Cheikh Issa mën nañ cee wax it moom it pës séefam li mu ko may ci yoonu murid wax nañ ne bi mu nekkee fële ca ca Mbaakol dëkk bu ñu naan dane woon ab xaritam suba damaa bëgg a siyaare ji ku baax ba dogu ci ki ñuy wax fa daaru salaam muy sëñ bu mag boobu sëñ mi ngi atum 1886 la woon loolu nee nañ ba suba ko jotee rek taw bu bari sóob ca jamono jooju nawet moom liñ baaxoon xam dañ koo fonkoon lool ku taw bu njëkk bi raw mën nañ ne bi raw na ma dafa bàyyi taw baab njimaam yépp dem ba ci mu bi bi mu delluwaat njom di àggaleb liggéeyam looloo ko may Balla Fally defar naa sëñ bi wax na ko ba tàyyi Balla Fally defar naa ko ak mu jëntalam ay nit ñëw nañ ci ci moom ba tàyyi mu ne leen defar day laaj taxaw ci amatuma jotut defar demal ca Balla Fally defar naa ko loolu boo demee njaareem danaam am kër guñ lay wax ne la kii la sëñ Tuubaa doon waxal jëmm ñu ba léegi màggal bu mag lañ koy defar ca Modaay dëkk bu ñu naan Modaay ca njaareem mooy que sëñ Tuubaa waxal ne ko demal ca Balla Fally sëñ ma bi fi sëñ mag bi jógee dem ca liggéey ba moom la bàyyi woon ak borom daaru mu daa ko taxawu ci lépp lu mu soxla ci liggéey bi mu yor taxawaay boo xam ne nii ñëpp la yéemoon daana wax sax moom sëñ ma numbe daan sama ñetti laxasaay yi de xaw ci gën a dëgër sëñ ma numbe daana ko wax daana waxu nitam naan sama ñetti laxasaay yi xam ma ban moo ci gën a dëgër sama laxasaay ga man ak Ceerno ba sëñ ba demee ca liggéey ba ma nekkoon ca rek ak sama laxasaay ba sëñ ba nekkee njaareem ak sama laxasaay ba sama diggante sëñ Mourou Moustapha sama ñetti laxasaay yi de xam ma ban moo ci gën a dëgër pëstéef la laxasaayam bi bi fi sëñ bi jógee jamono ji naqaree mu taxaw Ceerno borom daaru ci njaboot bi bi sëñ bi nekkee njaareem waxoon nañ ne bokkoon nañ ci ñuy dàqoon a joxe àddiya foo ko mas a gis laxasaay gi mi ngi ci ndigg li wax nañ ne bi mu wàcc liggéey sax dañ koo rocc ci ndigg li laxasaay gi la wàccaale bi liggéey doy na ci seere rek Serigne Saliou bu tuddee turam ronko ji day wadd boo tuddee turam ci kanamam ay ronko jam wadd ci taxawaayu sëñ Mandoumbe xarit sëñ Issa la lool ñoo seqoon liggéey bi ak sëñ Balla Fally ji ci njaariñ kon ñooñu doy nañ ci ay exemple ci yoonu murit ci wàllu positif Cheikh Ibra bis bam jaayanteeg sëriñ bi bis booba doy na sëkk la mu waxanteeg sëñ bi doy na Pastef lu mu wax sëriñ bi dana ko man de sëriñ bi ma doon seet su ma ñëwoon ñu ne ma wàcc na liggéey waaye fii moo di barabam nee na mu doy ma sëkk danaa ko liggéeyal di ko liggéeyal ba li ma soxla woon ci ngërëm danaa ko amee ci moom donte gisuma ko gis naa bàmmeelam loolu mooy yitte ju sëñ bi ne ko est-ce que Cheikh man mii de yonent bi may liggéeyal su ma ñëwoon ci jamono ñu ne ma asamaan si moo ko doon tiim biddiw yi moo ko doon tiim mu doy ma sëkk danaa ko liggéeyal ma nit ba làq ngërëmam waxante boobu muy wax ju gudd gudd joo xam ne nii waxante ne kook sëñ bu mag sëñ Basiiru nettali na ko ci Minanu Baaxil Xadiim loolu pësséef la moo ko may bisu keroog booba ba nii mu fi jugee ba nii waa këram nekkee ñu nekkee ci pësséef boobu ba far na sax bu ñuy wax pësséef léegi Baay Faal la ñuy wax maay Baay Faalu wala diw de Baay ca li ko waral mooy pësteefub Cheikh yi la la bàyyi ko digganteem ak sëriñ bi ca lu bari ci yoon wi ci xeeti pësteef ci moom lañ ko jàngate am na jëmm joo xam ne xañ na ñu bari xamuñu turam waaye dama ne woon su ma doon wax ci pësteef ma tuddee turam rek doy muy sëñ Modou Lo Dagana mbiram lu daw yaram la sëñ Modou Lo Dagana dafa bëgg sëñ Tuubaa lool jaayante sëriñ bi dem diir bu yàgg gisatul sëriñ bi nammeel googu noonu ak mbëggeel googu jàpp ko ba nga xam ne daa mel ne daa am lu yëg ci yaramam mu bàyyi koo dëkkam boobu ñu wooyee kokki guy sëñ Moussa Ka nee na talaata jam bàyyi ko ci kokki guy wax ay mbokkam ne danaa ko seeti danaa seeti sëñ bi fu mu nekk danaa ko gis talaata bisub talaata jam génne kokki guy ne day wëri ku baax ba at ma dellu si waatee ya talaata jooju la soog di gis atum lëm la doon wër sëñ Tuubaa ngir gis jëmmam ji nee na talaata jam jam tàggoo ca kokki guy talaata jooju la gisaat sëñ Tuubaa ca gabam ba mu gisee ku baax ki it ca déwén sa wala ba mu yeggee la ànd ak borom daaru salaam ñëw euh, seet si ku baax borom daaru salaam moom it doy na sëkk ci tëju kawe lim taxaw sëriñ Tuubaa ni ko sëñ bi bëggee woon nga xam fum fu mu ko mas gis rek ak àll ju nekk day muñ li sëñ bi wax ci moom moom it doy na sëkk pëseef ak yitte ju kawe waxuma la sax murit yi àndoon ak sëñ bi waaye pëseef boobu dafa feeñoon ci njabootam moom sëñ bu mag ay doomam ay sëtam sëñ Mudu Mustafa jumaa ji pëseef moo ko taxawal ndax tolloon nañ ci bi mu waxee loolu ñu bari dañ doon xanaan bi day gént jamono ji ni mu mu naan day taxawal jumaa joo xam ne nangami hectare la wala nangami mètre yoo xam ne da ko bëgg a taxawal wala tabax bu réy noonu boo xam ne ay millions yi millions wala ay milliards yi milliards te nit ñi amuñu lu ñu lekk tubaab yooyu ñu ko tegalee li nga xam ne ci anam boobu lañ ko war a mën a liggéey ci pësseefam ak dogom ci la jiitoo rakkam yi fekk ko ci ak taalibe ba mu taxawal lii mu taxawal muy jumaa ji nga xam ku fi ñëw ci njabootu Serigne Touba gi wala nga ci pësseef ba ci Cheikh Mouhamadou Fadal Cheikh Mouhamadou Mountakha Bachir mii nga xam ne moo ne ci bopp njabootu sëriñ Tuubaa bi yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko te yeggale ay sumbam moom mooy pëseef moom mooy yitte ju kawe mën nañ cee wax rek xoolal daara ju mag ji mu yëkkati boo digloo bu baax setantal keroog wax jam wax da nga naan nag lii mooy yitte ju kawe nee na jàngukaay yi gis di ko gis ca iraq di ko gis ca madinatul munawara di ko dégg dégg ca màkka la kànkuur yi génn imam malik ñoom Shafii ñoom Abu Hanifa kanfoore yëpp ci daar yooyu lañ génn nee na damaa bëgg noonu mu meloon ñoom ñuy laxas di ñëw si sama daara jii di Touba nee na àpp naa ko fi la téeméeri at même bu ma ko fekkewul loolu mooy yitte ju kawe dangay jiitu ñu fekk la ci ca loolu fu mu ko jëlee ci ay waajuram fu mu ko jëlee ci mag yi yoonu murid fu mu ko jële ci maamam Cheikhul Khadim waxuma la góor ñi nga xam ne ñooy murid waaye soxna Maymuna mii nga xam ne ñu ngi ci biir këram ca dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mosu ñoo xam ba séef bu mel noonu ci jigéen baax na lool laylatul xadar baax na lool ñuy nettali ji nit ñi ak ndaw yi ba séefu soxna Maymuna radiyallahu taala anha soxna Maymuna fii ci ay boor yi 1848 su ma juumu suñ fàllu garab bi mu nekkee daaru daal daaru moxti laylatul qadr bii muy taxawal dara dara waralu ko lu dul dàkk bëggug sëñ bi la ci doon la ci doon seet mu xool xool xool ne sëñ bi xamul lu lu lu mu gën a sopp alxuraan mu ne xaaral ma dàkk bëggam ci alxuraan daal di dàkk bis bi nga xam ne mooy laylatul qadr keroog bi bi ko loolu di dikkal sax aal jooju nee ci bisi laylatul qadr la la ko aal ji dikkal te daarul moot mu lijjanti ba am ñaari ginaaram ci anam yu metti sax la ko amee defaral ko boppam ci pastéefam wax nañ ne ba mu defaree ginaar yi ba noppi sax jafe-jafe yi yi njëkk feeñ mooy amutoon oto bu ko jëlee Daaru Muxti indi ko Touba mu dogu ci ne fawu leer reer bi ma togg nii ki fi nekkal sëñ Touba moo koy moo koy jëfandikoo te boobu Cheikh Mamadou Fadi moo fi nekk guddi na lool mu ñëw sëñ mu daw a sëñ mu daaw bàll ñu wër wër wër daamar gu yóbbu soxna si Touba wax nañ ne Ahmadou Mokhtar Mbaw moom lañ mujj àbb otoom mu ñëw Touba ak si guddi lool ba sëñ Fallou fatu na wax nañ ne sax bëkk néeg bi nga xam ne moom la dajal ci kër gi da koo xamal ne ko dëgg yàlla ñeme mu ko ñeme mu yëg mu bàyyi boo nga dem soxna si ci pëstéef ak ci dogu ak ci xam li mu bëgg ak ci xam gu xam sëñ Fallou mii Dari demal boppam ba ci buntu néeg bi mu yëglu sëñ bi ne ko kooku mu ne ko mën a may muuna mu ne ko bismillah nee na mu teg xéewal bi xamal ko ne ko ndab lii nii bi fi sëñ Tuubaa nekkoon moom laa koy jox mu xéewaloo yow yaa fi sëñ Tuubaa làkk bëggu sëñ bi dong tax ma tànn laylatul qadr gii def ci reer di ci bi ak bi ak bi soxna ba keroog bi mu xéewaloo ci ndab li ba noppi da daal di ñaanal ne ko daal yàlla na doon giléem yaakaar naa laylatul xadar man giléem laylatul xadar ba laylatul xadar laa koy gis màggal gi sax ay nag laa gis ak ginnaaw loolu barkeelu làmmiñu Cheikh Mouhamadou Fadal soxna may mooy pëstéef fii këru pëstéef la lii pëstéef moo ko ko lii yitte jukaay moo ko ko moo tax doomi Sëñ Tuubaa yëpp dañ koo bëgg lool bis bii bu masaa dañ ci daa bi waaw bis bii bu jotee dañ ciy bàggante yaakaar naa gis ngeen nataal bu raar benn sijaada gu ndaw soxna may mun ak sañ Saaliw ñu bokk nekk benn sijaada gu ndaw boo xam ne da gis sëñ Saaliw soxna may ñu bokk nekk sijaada bi ndeysaan cofeel gu ñu amoon ci moom ak bët gu ñu ko daa xoole sëñ Tuubaa gi moo taxoon bisam bii dañ ci daa jàpp bu baax a baax a baax noonu it la ko sëtam yi nga xam ne ñoo ko doon ginnaawam yëpp di ko ci taxaw mbokk yi buñ bëggoon a jël ay pësteef ci yoonu murit fi la ñuy fanaan dama ne woon bu may wax pësteef ci yoonu murit kenn lay tudd waaye fi ne boo tuddee kenn yu baree bare dañuy ñëw sa sa ci ci sa kanam am na ci ñoo xam ne lañ jaayante ak sëñ bi ak lañ waxante ak sëñ bi seen diggante la yem la leen sëñ bi wax ak la leen di dig yomal xiyam lay feeñ ëllëg seen pësteef moo tax ñu ne ko dara yu àdduna soxlawuñ bàyyi ba ëllëg bari na ci mag ñi am na ci ñoo xam ne ca bis ba la leen gërëm yeewi leen am na ci ñoo xam ne ci ay bis mu yeewi leen am na ci ñoo xam ne ci ay weer am na ci ñoo xam ne da leen a téye ba keroog muy wuy ji borom kon day mel ne mi ngi guddi ca jataay bi mi ngi bëgg a te yaakaar naa tomb bii nii ñi ci mën a wax bare na tomb bu mujj bii nga xam ne ci lañuy ñuy tëjee nag mooy liy maye Pastef ndax day mel ne Pastef neex na kat waa lan moo koy may yitti ju kawe lu koy maye ñu tànn ci ñetti tomb rek yi koy maye bari na nag bi njëkk ci bi koy maye mooy di ñaan yàlla yàlla tëju bunt yi nañ koy ñaan yu rëy yi suñ borom dafa bëgg ku koy ñaan lu rëy man yéemu naa ci jàmm bi nga xam ne sax lu tuuti lay ñaan yàlla booy ñaan yàlla da nga koy ñaan lu rëy rëy rëy rëy damay faral di wax gone yu ndaw yi may jàngal naan leen koo yee guddi xaaju guddi mu yew nga ne ko loo bëgg lan mooy say ahdaaf lan nga bëgg ci àdduna mu ne laa ah, xaaral ma xool man de xamal ne kooku da koy dem kooku moom du dem moom xaaral ma wax li ma bëgg ak samay ahdaaf ki nga xam ne da nga ko woo muy taaralal yi wax rek bëgg naa nangam bëgg naa nangam nga xam ne loolu da koo bàyyi cim xelam mi ngi koy ñaan mi ngi koy sabab